li war a dox ci coalition mooy mm. lépp lu ñuy def dañuy waxtaanee mais bu dee coalition boo xam ne li ñuy wax li lépp lu ñuy def doxalin bi te dama la koy firndeel benn par benn doxalin bi ñuy dox ñaari nit wala ñetti nit ci ñooy ñooy ñooy tëju ñëw yeewu rek nga dégg ci presse bi wala ci média yi loolu démocratie amul ci biir mm. d'abord li dékk mooy coalition Yewwi Askan bi amul démocratie interne Sonko moo jël troisième PUR moo jël quatrième coalition bi bi ma bi ma dugg nii Sonko moo jël troisième PUR jël quatrième Khalifa Sall sur dix-neuf communes Dakar dix-huit communes yëpp Khalifa Sall la ko gagné léegi kan moo gën a légitime ñetti ñooñu pour que ñu décider te j'ai vu que en toute démocratie que te si biir instance yi mais démocratie c'est femme waaw yeewu askan bi mais Sonko dalul wax sax xalifa du wax lu bëri mais gars yi ñoo discuter échanger tey Sonko mooy leader de l'opposition mais suba mun na nekk laay gisee am déet ñun tey coalition bii ñu defar mais dañ koy dem ba deux vingt 2024 mais Sonko bi mu jëlee parole xam nga lu mu wax dafa ne coalition bi ñooy ànd législatif ànd présidentiel bu ñu demee présidentiel fii si ñun nii ñëpp ku bëgg a présenté wu présidentiel nga dem ku dem deuxième ku dem premier tour ku génn deuxième tour ñëpp ànd ak yow kon kooku démocrate la mais yow gis nga ne coalition Yewwi Askan Wi Sonko ngar daa joowoo ko xalifa ngar daa joowoo ko jàpp nga ne daal démocratie am na foofu. non am na démocratie démocratie gars yi dañuy waxtaan te kenn moomul kenn. mais mais est-ce que tamit jàpp nga ne coalition la boo xam ne mën naa jàmmaarloo ak benn Bokk Yaakaar gagné ay grandes ville ci élection locale yi. non dinaa la wax leen euh, man li ma gis ci coalition Yewwi Askan bi mosuma ko gis sax ci coalition te dem def naa coalition yu bëri nag ànd naa ak def naa coalition ay kàngam bokk ak ñoom mais gis naa ne euh, coalition bii ñu nekk nii c'est la coalition de l'avenir c'est la coalition qui fera partir Macky la man maa la wax lii. ah bii. Hmm. bii mooy mooy tax Macky génn pale bi dem bar bal du tàkk sagar du xeeñ bii coalition. yeewi askan bi yeewi askan bi yeewi askan dafa dafa méngoog turam.